jom xale yi euh, mën a profito ci euh, sunu borom xam-xam yi donc loolu euh, mooy sa coup de cœur tey Fama. tout à alors tey li nga xamante ne moom la ñu ñëwee tey muy grand prix boo xamante ni but bi mooy revalorisation de l' enseignement alors dañu dig bëgg a sargal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngale ndax xam nañ seen coono yi nga xamante ne moom la ñuy daj ci classe yi jàngal élève mu dégg. di avancer ci classe yi de nekk ba màgg ba nekk leader loolu yombul donc c'est une chose très très difficile et on passe énormément de temps ak suñu enseignants yi que qu'à la maison en fait donc ñooñu dañ leen war a delloo njukkal dañ leen war a sàggal heureusement que Serigne Mbaye Thiam moom comprendre na ko gouvernement bi le président Macky Sall comprendre na ko moo tax tey ñu def une première édition tuddee ko nag li nga xamante ni mooy revalorisation de l'enseignement au Sénégal Euh, ñu ngi ko fas yéenee def le 28 décembre au Grand Théâtre fa lañ fas yéenee def euh, euh, cérémonie de remise bi mu nekk prix bu mag boo xamante ne liñ ci bëgg mooy revaloriser liñ ci bëgg mooy encourager liñ ci bëgg mooy récompenser liñ ci bëgg mooy distinguer ñi nga xamante ni dañuy liggéey te liggéeyantu wuñu muy enseignants yi 385 candidature la ñu déposé woon ñett ci ñooñu la ñu fas yéenee tànn daal leen di sargal ñett ci ñooñu la ñu fas yéenee delloo njukkal ñett ci ñooñu la ñu bëgg bis dina ñëw ñu bokk ci prix mondial de l'enseignement bi loolu dina ñuy bëgg tel moom mooy suñu mbébét donc je pense que bu ñu leen di jàppalee di leen encourager dina tax euh, li ñuy def ñu gën koo def ak xol gën ko def ak xëtër gën si imprégné wu xam ne que xale yi ñoom la ñu yaakaar pour avancer et avoir franchement euh, benn culture avoir franchement des notions de base et c'est super important donc loolu ñu ngi koy saluer bu baax a baax a baax mu ngi fas yéene am le 28 décembre au Grand Théâtre le yéene amee muy cérémonie de remise de prix bi trois candidatures la nag les meilleurs la ñu tànn daal leen fas yéene delloo njukkal. voilà ñoom ko ay ay jàngalekat ay ah. jàngalekat lañ jàngalekat pas ñi nekk ci administration pas ñi nekk ci euh, fonction euh, fonction publique wala déedéet ñi nga xamante ni ñooy xëy huit si huit heures ñu commencé cours yi. nekk ak élèves yi ndoog ñoom di leen jàngal enseignant yooyu la ñuy delloo njukkal hmm. ñooñu la pas ñi nekk ci bureau yi ñooñu nga xamante ni ñoo nekk ci école ba la ñuy delloo njukkal voilà donc ñoom ñëpp euh, am nañu wuuy c'est c'est c'est bien mën nañu lu dul euh, rafetlu ko donc euh, c'est c'est c'est magnifique ah je pense qu'il y a je pense qu'il y a un élément dessus on a j'ai j'ai on a vu ça ci ci ci ci ci journal bi on peut y revenir mën nañu déglu Serigne Serigne Baye Thiam ah tu as vu le ministre <laughs> hier j'étais avec le ministre donc c'était à Magicland oh là là mu doon def benn arbre de Noël. Wow. Okay. donc euh, ah donc au CN. non non non on était ensemble. c'était vous avez prié ensemble euh, non c'est moi qui présentais. Ah, donc euh, donc au CN aussi Exidex. <laughs> mais da nga présenté c' donc au CN Exidex. mais donc au CN arrêté donc au CN ah. rek. donc ko tàllal micro. arrêté <laughs> il était pas là-bas. il était là ouais je pense euh, qu'on peut regarder l'élément enfin si tu le permets. Serigne Mbaye Thiam. jàngalekat yi dinañ am seen raayu bopp boo xam ne ci njiitu réew mi lay jóge li waral li mel mooy bëgg leen gën a joxaat cër te tamit yokk seen valeur ci kanam ñëpp ñu tolloon ci 385 ci Sénégal yëpp jury national bi jël ci ñett yoo xam ne ci ay critères la ko teg. juróom-ñetti weer ci ginnaaw daa di tëral ci suñu réew li nga xam ne mooy benn raaya bu ñuy jox jàngalekat boo xam ne bii dañ ko ràññee. ci taxawaayam ci liggéeyam ci yaram ak euh, ni muy téye ndongo yi nga xam ne lañ ko dénk ba pare ànd ci ak euh, ñi nekk ci gox bi muy liggéey am na ay dossiers yu ñu tànn léegi nag ñett ñi nga xam ne euh, alxemes bi di ñëw ci lañuy tànn kat mooy nekk Euh, lauréat grand prix du chef de l'État. ab grand prix chef de l'État boo xam ne sunu sukkandiku ci kàddub Serigne Mbaye Thiam dafa war a jàppale sunu jàngalekat yi ngir ñu mën am taxawaay gu rafet suñu demee ci prix mondial de l'enseignant. léegi nag ñetti jàngalekat et puis leneen li ci am solo mooy li ñu bëgg mooy ki am prix boobu fii ci Sénégal ëllëg ñu mën ko yóbbu mu jongante ci prix bi nga xam ne ci àddina bi yëpp dañ koy joxe mu nekk li ñuy wax prix mondial de l'enseignant. Euh, nga xam ne prix boobu at mu jot ci mois de mars lañ koy joxe fële ci Dubaï ci ñu bari ci àddina bi di fa toog ay chef d'état lu nekk te prix boobu euh, euh, attestation lañ lay jox médaille ak dañ lay jox aussi un million de dollars. président Macky Sall taxawal ab grand prix pour l'enseignant mu nar nekk lu am solo ndax góor yi le ñoom lenn rek moo leen yitteel jàngal àndaawu sunu. voilà mu ngoog donc euh, loolu ñu ngi ko euh, jëlee ci euh, suñu ay jotaayu xibaar démb ci guddi ak tey ci suba on s'est dit pourquoi pas revenir là-dessus parce que loolu moo nekkoon coup de cœur bu Fama Thioune ñu ñëpp am nañu ay jàngalekat yoo xamante ni ils nous ont bi ñu nekkee bi ñu nekkee école bu weesoo ah ñi ñu daan ah tendre par quatre ak di ñu emmerder ak front contre la table on a eu tellement d'enseignants yoo xamante ni am na ci jigéen ñoo xamante ni ci ay jàngalekat ñi dañu leen noboon ñi dañu nekkoon suñu ay j'ai j'ai rien. Tu te rappelles de quelle de quelle madame. man madame Ly madame. man ban école point euh, point euh, point deux. peut-être qu'elle est en train de regarder. Ouais, on donc peut toujours leur faire atteindre bu ñu monsieur Guèye. man monsieur Guèye la moom a marqué ah, donc sur les hommes monsieur Guèye monsieur Ndiaye monsieur Ndiaye Jacques monsieur Jacques ak euh, monsieur monsieur Dramé moo nekkoon le directeur de l'école okay. donc euh, sinon c'est madame Ly ak madame Ndiaye d'accord moo marqué mais sa nawle yi wax aussi fàttaliku tuuti ñoom tamit seen jàngalekat yi si vous avez des enseignants des professeurs ou des euh, jàngalekat yoo xamante ni ils vous ont marqué bi ngeen nekkee seen xaleel euh, à l'école n'hésitez pas envoyez nous leur nom sur euh, sur Facebook après nu on va on va leur faire un clin parce que am na ci ñoo xamante ni déggatuñu gisatuñu ñu leen jàngal mais yana ci ñoo xamante ni dañ ñu marqué Mado nekkoon euh, boobu tàggu Isaac Foster la. Mhm. économie familiale tout bi laa fàtte. mais ah, kooku sa prof écofam. elle nous avait marqué. elle était grande belle très jolie xale yi bëgg ko nag mu nekkoon très de dëkkoon Mermoz malheureusement je me rappelle plus de son mm, nom. Mm, y a mm. eu monsieur Diompi aussi mon professeur d'anglais. Diompi waaw donc loolu tàggu Madiaye Sall la. Ah. monsieur Kassé tamit tàngoon noonu ak monsieur Gassama <laughs> mais ñoom. duma nañ ma ba monsieur Guèye moom ma yoon Cheikh tout le temps jabaram français nekkoon à chaque fois daf ñu doon bàyyi si classe bi génn ni alors mon amour mon amour bi su ko waxee xam nga xale waaw yàgg ngaa déglu professeur yu baax ak Jo Ndiaye prof anglais boobu xam ngeen Jo Ndiaye ah. il m'a trop marqué doomam sama xarit la William David Mbaye Ndiaye donc Jo Ndiaye monsieur Sall école plus monsieur Guèye histoire géo sem anne ak euh, monsieur Seck prof mat Ah, comme que j'avais que des zéros en maths il me disait tout le temps bul soxla woo zéro ngay am. parce que yow zéro ngay am. monsieur Seydou ah. li ma gënoon marqué mooy toujours dafa doon enseignement bi da ko jël. monsieur nan passion. Mm. passion mm-hmm. parce que loxo yi da doon weex toujours ak craie yi. ah beneen beneen euh, professeur il est euh, muy monsieur Ndiaye. Mm-hmm. prof anglais la mais. à chaque fois bu doon wax am ay 12 ans 13 ans. ngay wax ak ki naan ko monsieur c'est-à-dire dafa doon. oui da lay yóbbu fenn quoi dafa ma doon mm. euh, dafa ma en plus buy wax dama terrible loon. Mm. buy wax da doon laal jaaro bi comme si dama doon waaj a mbéj quoi. mais t'as marqué quoi prof de quoi. pour anglais. un prof anglais oui. ah ben c'est cool comme ni euh, Ndiaye waxee léegi monsieur Kandé. Ah. Liberté 1. Ah. boobu gënoon nekk xale il est décédé keroog la ma ko sama yaay wax. ndeysaan mu nekkoon prof bu amoon rigueur. c'est vrai que des nga romb kenn mu ne la yow yaa euh, prof bu ma marqué mais bi ma màggee tuuti. Mhm. yaa monsieur Cissé prof euh, français. Ah. école collège Saldia ak Jeannot Faye. moom nga ñëpp a ko xam moom jaar jaaram. histoire géographie nga xamante ne dañu nekkoon ay prof yu am rigueur. pare métti daan tiital nit tiital xale yi donc boo doon ñëw te te obligé pap nga jàng say leçon def say exercice mais noonu la quand a lu mu baax baax dafay xaw a tiital waaw dafay a je pense qu'il l'a mérité parce dem na ba ibbi école ibbi waat ay école xam nga il était il avait beaucoup de rigueur mais je pense que pas-pas boobu amoon ak aarñu boobu dafa dem ba ça a été récompensé parce que léegi moom moom moom ah. mais tu vois que xale yi fay génn machallah toujours les élèves ah ba termi ba ba terminal da ngay gis da ngay jàng sa leçon wala ñu tendre la par carte. est-ce que xam nga ne terrorisé woon à l'école. oui moi j'étais pas terrorisé parce que j'étais un bon élève. tu étais studieux modeste mise à part puisque paraît-il que c'est pour les médiocres. <laughs> alors école primaire amoon naa euh, euh, maîtresse bu tudd ah. madame Signaté très adorable. baax c'est-à-dire c'était plus que jàngalekat c'était presque une maman. c'est-à-dire nous autres bu ñu doon xëy dañuy yàkkamti euh, dem école. parce que euh, daf ñu doon jàngal ba pare mais du ñu soyé quoi mm-hmm. mère la woon je sais pas où est-ce qu'elle est maintenant à un moment donné jot naa euh, doomam sur Facebook quelque chose comme ça mais madame Signaté lu tudd euh, moo ñu doon jàngal école primaire quand Abdou Diassé foofu la Coumba Gawlo defee primaire d'ailleurs donc moom elle m'a marqué bi may def bi ma commencé am ay professeur sama professeur allemand Frau Ndiaye. lañ ko doon tuddee oui dama ko nobboon na ko. il a Frau Ndiaye Frau Ndiaye. ich liebe dich laa ko njëkk mooy je t'aime en allemand quand elle est entrée euh, ci classe bi lan ngeen mus a dégg ci allemand j'ai dit ich donc depuis ce jour euh, dama ko nopp gëj naa ko gis je pense à elle. voilà parce <laughs> qu'elle était belle moo dàqoon ci suñu professeur yi c'est Mame Thierno Birahim Mbacké donc Frau Ndiaye la tuddoon euh, à l'époque Babacar Mbaye Ndak que tout le monde connaît. Mhm. Euh, il écrit, c'est un homme de culture, on le voit souvent à la télé, c'était mon professeur d'histoire et de géographie. Il m'a marqué une partie de ce que je suis devenu, c'est grâce à lui. Ah. Voilà, moi, moi facilité loon samay entrée RTS et tout ça et c'était mon professeur d'histoire et de géographie. Mhm. Voilà, donc euh, je l'embrasse d'ailleurs très fort hein, moom euh, Babacar Mbaye Ndak, euh, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Donc vous aussi si vous avez des jàngalekat qui vous ont marqué, des enseignants ou des professeurs, dites-le nous sur Facebook après ñun tamit euh, ñu euh, partager ko. voilà merci Fama